salaamaaleykum suñu mbokk internet yu euh, Dakar net dal leen jàmm ci les minutes euh, de l'info ngeen ci ànd ak Ouzin ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor ak Dakar net dara du rëcc ci réew mi li ci gën a fës dañu koy ubbee ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Dof Ndeye Alassane Diallo di turam dëggantaan Dof Ndeye dañu ko tegoon loxo le 11 euh, bii passé moom li tax ñu tegoon ko loxo ginnaaw bi mu doon menacé ab jarbaatam nii daf koy rey li tax mu ko doon euh, menacé ci kàddu Dof Ndeye 7500 la jarbaat bi sàcc si kalpeem ba pare ki nga xamante ni moom mooy Dof Ndeye dafa génn ci biir kër gi daal di jël li nga xamante ni moom mooy pistolet daal di def ay sommation maanaam tir tiré ci aire bi di menacé waa kër gi daal di jël ñaari pantalon jarbaat bi daal di koy euh, taal papa ji daal di daw dem euh, fi nga xamante ni euh, moom mooy police Grand Yoff woote wallu police ñëw teg ko loxo moom daf ndey dafa weddi tuuma yooyu nga xamante ni dañ ko gàll ci ngoddam waaye mbir ma euh, jeexewul noonu li tax jeexewul noonu ndax euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy enquêteurs yi dañoo daw wutali euh, néegam fi nga xamante ni moom mooy Dof Ndeye fekk ñu fa dara ñu dem fi nga xamante ni mooy si néegu papam fekk fa li nga xamante ni moom mooy 10 cartouches 5 millimètres maanaam ay xeetu ballaak yu nga xamante ni dafay ànd ak bi nga xamante ni moom la doon utiliser pour def sommation yooyu Dof Ndeye bi ko enquêteurs yi daal di sëqatee mu bañ ñi loolu moomu ko ginnaaw gi nag la xam ne amul pexe mu nangu nii moom moom moom bal yooyu yoon nag ah, di ko ah, toppee ah, li ñu naan yor piste la boo xamante ni amoo ci ndogal ak menacer nit ki ni da nga koy rey ak euh, tànqal nit ñi mayoo nit ñi jàmm maanaam ci wolof bu ñu ko tekkee moom nag euh, ba mu jàkkaarloog euh, juge ba juge ba nag daf ne ko doom ndey lu tax ngay def lii muy indi lu tax ngay naan da ngay menacer sa jarbaat bi mu nekk fa naan dafa juum yooyu waaye nag procès ba ko renvoyé ba le 23 juillet maanaam dof ndey fa lay tabaskee ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Tanor Dieng 2019 bis ni ki tey la génnoon àddina tey mu nekk si ñaari at ñu koy koy eh, jaale ay mbokkam ah di ko ñaan suufu ngéeñeen sedd ci kawam wàcce kaamil ba nag ña nga koy amee fële nga xamante ni moom mooy Mermoz. ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te les minutes de l'info dañu koy daaneele mooy wàllu tàggat yaram d'ailleurs ki nga xamante ni moom mooy Matar Ba tey la war a yóbbu rapport bu mag bu rëy ba tegu ci loxoom war koo jox ki nga xamante ni moom mooy président Macky Sall li tax ñu fàttali leen war na ma trois semaines président Macky Sall le 23 juin bi mu jàkkaarloog Matar Ba ci euh, ne ko damaa bëgg nga defal ma rapport ci euh, li nga xamante moom mooy euh, terrain yi ñu tabax ak maanaam mbir yi nga xamante ni dañu koy tabax maanaam stade yi ñu fiy yooyu yëpp mu daal koy defar rapport mu xam naka la mbir ma demee ndax ñu ki nga xamante ni moom mooy Sadio Mané yooyu na yàbbi ci euh, pelouse bu ñaaw bu bon bi amoon fële nga xamante ni moom mooy Stade Lat Dior bu cees ak ki nga xamante ni moom mooy Cheikhou Kouyaté ba juróon coow président Macky Sall nag daal di waxoon euh, Matar Ba mu indil ko benn rapport ci euh, li nga xamante ni mooy stade ndax rapport bi dina ko convaincre loolu yëpp di ay xibaar yu ñuy toppandi wéy leen di abonné seen site d'information bi di Dakar Net dara du leen rëcc ci réew mi